par cette question provocation euh, je le dis pas hein, euh, si les Sénégalais on voté c'est qu'ils ont euh, ils ont voté pour des idéaux mhm. mais lan ngay tontu ñi leen di tooñ naan ndekete yow projet amul et puis et puis comment nan nga ñu mën a expliquer euh, li Ousmane Sonko wax au conseil des ministres du 24 avril ne euh, ñu ngi rédiger projet bi dina pare d'ici novembre c'est intéressant xam nga nee naa la ñaata parti politique ñoo am Sénégal ñaata ñoo bokkoon ci campagne bi ñun dañ koo bind moo ngi nii te boo demee dans les différentes ambassades je vous parie boo demee ñoom ñëpp dañoo traduire livre bi teg ko lii c'est un programme sur plus de 260 pages. doo ma ko may. béykat ma avec grand plaisir parce que ça nous permet boo leen di waxati ku la wax projet amul nga ni nii léegi lii lan la et qu'est-ce qui est inscrit dedans. man waxuma loolu. léegi xam quest euh, dafa ni la lii c'est le programme. le premier ministre ah, am naa ci benn exemple. xam mais bon je le je le prends pour mes journalistes. xoolal que ce qui se passe mooy. Uh-huh. les instruments de planification. lii c'est un programme politique mais les instruments de planification yi nga xamante ni moom moo koy accompagner moo koy matérialiser loolu lañ ni la moom la ñuy dem gëstu ji. Euh, le PSE bi ngay wax avant moo am la yoonu yokkute et cetera lan la fi fekk lan mooy ps e? lu dul des programme économiques et social bi fi amoon SNDS bi ñu doon wax loolu la ñu jël def ko ay instruments euh, adossé ko ay mu nekk ay kii de planification ñu voile ko tuuti dem tëddee ji ko PSE loolu képp la loolu kese la état boo ñëw da nga fekk des instruments de planification lii programme politique la charpente la mënoo dugg dans le détail parce que téewoo état lii mooy le programme économique lii la mise en œuvre nag de ces politiques de souveraineté yi mu wax de transformation structure de l'économie par benn investissement massif dans l'agriculture le secteur primaire la transformation industrielle mobilisation recettes yi et cetera loolu nag moom la la président wax pour matérialiser le programme politique mais xam nga ko dañ lay créer wala xaaral ma ñëw mhm. les instruments de planification bi koy jox tur bu bees nga xam ni di nga jógee du PSE ñëw ci instrument yooyu. non xam nga lii. lii xam nga ah. lii euh, tous les partis sérieux yuy dem élection. waaw dañuy proposer un programme. programme économique. waaw mais l'histoire souvent avec ces programmes économiques c'est que bu ñu ñëwee. Mhm. day am un défaut de de de de de conformité. day am un défaut de conformité muy benn beneen bi. man gisuma fi parti bu fi proposer un programme économique mu ñëw au pouvoir euh, teg programme bi nan lañ koy financer fan la ñuy jëlee ressources yi euh, nan la ñuy matérialiser euh, suñu engagement majeur yi mu ñëw au pouvoir mu mën a dérouler démb rappelé naa ko Moustapha Diakhaté Macky Sall bi mu ñëwee avec son programme politique et économique yoonu yokkute il lui a fallu deux ans ñu élaborer le plan Sénégal émergent et un an plus tard Macky Sall commencé lancer ses grands ses ses ses, ses grands projets c'est-à-dire est-ce que doo leen expliquer euh, loolu plutôt que de que, que de donner l'impression que vous êtes venu avec des solutions magiques alors que ci suuf ministère yi ñu ngi liggéey ba dee dañ leen di naan jox leen ñu formuler leen ñu une une lettre de de de, de politique sectorielle donc gaa yaa ngi nekk non gaa yaa ngi no ça veut que pare. sur la base du programme non mais yow defal naa defal naa defal naa non non pas sur la base. du programme parce que ña fa nekk xamaguñu seen programme. déglu ah, leen ne de politique sectorielle. yo non man. je lettre de politique sectorielle ñu wax est ce leen nax comme li ñu la wax nii ci diplomatie. Ah. expliquez leen wu leen. non kenn naxuñu. expliquez wu ñu leen ce les agents des ministères lan programme politique. boo indee un programme politique programme bi ça définit les grands principes opérationnel bi pour nga am ko il eût fallu nga téye les instruments économiques de l'État nga accéder ci ñun suñu budget xam nga ni c'est un budget qui n'est pas sincère du tout et c'est assumé et reconnu par le ministre bi fi nekkoon Moustapha Ba moo ni la j'ai planifié un budget de 7000 milliards mais xam naa ni budget bi dama cee yokk loo xamante ni war ci woon a nekk est-ce que comprendre nga moom reconnaître ko c'est pas loo xam ne dañ koy inventer walla dara parce que li euh, lu loi bi wax nan ngay présenter budget dafa ne tout ce qui touche les financement remboursement de la dette ak yooyu bu ko ci dugal il est de cinq mille et quelques milliards moo ci yokk loolu ñu wax ko mu ne noo dama ko def pour comme pour créer benn comparaison depuis Abdou juuf ak lay Wade ak Macky Sall pour montrer la progression mais c'est pas loolu la la loi 2022 wax waxu ko donc moo tax ma ni la le programme politique ce sont les grands principes xam nga léegi nii mënoon nga ñoo wax pourquoi ngeen def assise alors que vous avez déjà un programme sur la justice pourquoi ñu def assise yi les grands principes moo nekk fii te moom la ñuy appliquer les grands principes moo nekk fii moom la ñuy appliquer donc le programme politique mënul ànd ak des instruments yoo xam ni danga naan xaalis bi fii laa koy jëlee ban kan moo téye état ba xam quelle est la réalité de l' yow fii cour des comptes rek mënoo jot euh, rapport am waxuma la l'opacité dans laquelle fonctionne l' état ban dëkk ngeen gis un programme politique ñu naan la dañ ko financer zéro centime près donc instrument de planification du projet loolu la nit ñi di liggéey merci pour que bu ñu ñëwee di def suñu loi de finance wala bu ñuy dem ngeen soog a gis nag l'opéra le caractère opératoire de ce programme moo tax boo ngeen nee projet amul te y un programme de deux cent cinquante pages on se demande vraiment est-ce que les gens essaient de tromper les Sénégalais wala ñoom ñooy tromper seen bopp mais le projet existe et bientôt vous allez vous rendre compte de ses bienfaits pour l'économie et le social